douche ñii dee ko soxla gaaw leen ah soo leen gaaw leen nekk si douche la mel ne ka nekk si yére ya nekk si waxande ah war a gaaw xam ne den xam ne dañ toll si situation laa ilaaha illallah muhammad rasulullah oh. laa liggéey nii. laa ni parent ba wàcce. yéen kenn du ko def. naan yéen kenn du ko def. Ah. ah ak ñun mën naa nekk si biir doo ko bàyyi mu réservé. ah, ah. man ma ñàkk a réservé man ma ñàkk a réservé. waaw dugal. taper sur la porte quand on est dans les toilettes, on ne parle pas. Hein? Tu n'as pas d'éducation de... Ah, ah, mon éducation. Eh, si il viens à la toilette, il ne faut pas... Hum, hum, c'est des hum. Il faut laisser... Mané, ah, ah, amul, ah, amul, les laudef. Ah, ah, amul, les Ah, ah, On ne parle pas. Quand, tu es aux toilettes, tu ne parles pas. 12 bidal, 12 bidal, bes douga, 5 minutes ou gen, 5 minutes. du ko u génn cinq minutes même baala dul sax wala réservé sax baax na. man je fais pas du buisé. waaw waaw je ah, ma baigner xaw ma les toilettes wax daal wax na ma la ka. waaw waaw fu séesee ba léegi nii. hey hey waaw fu séesee di ma la xaaral yóbbu Abidjan. Eh, waaw. je ne

95% de produits importés waaye tamit des produits locaux yi 100% naturel baax neex en en place baax ci xale ak mag pour xeetu fruits boo bëgg am na fa lépp lu xale yi soxla rek dem fa chocolat cookies crème glacée yaourt chips et bonbons yu neex Les écrémé sucré et non sucré wala en poudre diwlin épices vinaigre et yeneen waaye nag yemuñu foofu am na espace cosmétique ci biir ay xeetu jiw bopp yu baax pâte dentifrice brosse à dents eau de toilette déodorant parfum de chambre nga xeeñ neex sa kër ak sa auto xeeñ neex ay insecticide mouchoir douche pour seeni doom savon eau de javel lingette ak ay képp yu dëgër booy anniversaire wala nga mariage jaar fa am na décoration yu yanj ay gâteau yu neex te am maana weer nga ne ko mbuus ah fii ñaata ñaata nit a fi man a ñaata nit a nekk si ndaje mi waaw non kay kenn war a teew waaye li noo wax nii njëriñ la ah xëy na def ko jekk nag waaw seetlu na mu lan la ñaxtu si koñ bi ak waa kaa njëkk a wax ah, du moom laa may dafa ba jekk rek seetal man seetal ma lii rek hey aw boo est-ce que aw li wax nii sax est-ce que maa ngi kaa dégg. ay man man man man xaw ma nag dëgg dëgg dëgg dëgg. eh. histoire sëriñ bi nu meloon rek jama defam ah tuuru rek li mu moo tax kenn mënu fee jariñ kenn teel a def ba jekkam ah, ah. kenn tey ñaar eh bisimilah bàyyi xoon tuuti rek tuuti vive mané ne may nu tuuti oui ma may nu nu développé parole nous développer développé parole yi may nu tuuti aje sëñ si la su ma si la waaleykum salaam ginnaaw ko dañu xawa yakam di te booba legui do rek na ñama deful nak nan tambali waxtanu ci joxal ñaan tambali waxtanu ñom nañu xam na ne man man man dama ñu soxle deug deug am de fa nekkal. waaw waaw am na ñu nekk si jotaay bi foofu la ñu nekkoon. ah ah waay ah ah ñàkk a sutura. ah ñàkk a sutura. man man booleel ma. yow monsieur bi sa bopp ah, ma ndaw mi nag. nuyoo naa. tàngaay xool moo tax fayuñu ñor parce que dafa yàgg faaw nekkoon tamit nag seen suñ seen suñu. waaw parce que dama nekkoon seen seen suñu ubbi na ubbi na sax. waaw ban ko waxee ah, buur. waaw wax dëgg balaa di suñ ko laajee dama ci dëgg mu ngi woon. waaw bisimilah. parce que ñu ngi jublu si waxtaan bi. toll nii si. loolu bëggoon. heure baa ngay dem. ñun ab villageois la si villageois boobu nag mu ngi si koor bi. te weeru koor woonu nu nekk war na noo jox yàlla li mu moom rawatina nag bésab koor bii te nu ngi toll si weeru ramadaan ah weeru koor maanaam nu la woor timis nu dox fa ñu jul fa fa dégg ala xalaatu mën a mën a naw mi. asalaatu xayrun naw mi. mina naw jox. u xëdda ndax xëdda lii tax ña programme que dañu bëgg baa xëdde ba pare baa déggaatee sa nodd ga u jóg u julli baa mënee tëddaat u tëddaat am déet tigi te ñu interdit ñu interdit ah soccu soccu surtout soccu ba tooy surtout surtout surtout surtout surtout sa soccu ba tooy bala parce ah, que si weeru koor laa nekk. surtout lii na mu méngool waaw maanaam. sa sutura la. ba tax na. su ba tax na nu bañ nu sóoraale. soccu ba tooy bi. une sóoraale ko soccu ba tooy bi. in la soccoo soccu ba wow korom. waaw waaw. AVD të ah. ah. ba tax na mburu mburuma ba mu doon ab liibar mu doon dog a fukki dërëm ndax barkeelu rek la mm-hmm. la si ëpp farata bu ëpp sa farata moo la tàndarma mm-hmm. yaa ngi mm-hmm. nu wàññi jawaate ba ndax amul njariñ waaw nu barey lanoo màndu si weeru koor rasi dolli fa wastu julli jote hmm. nu jox in defi jiga ba day ba mu mat am de hmm. point bi ëpp solo bu ëpp solo képp ka xamantene ni même nga la doon joxe wara gar ci wéru koor na oññaku hmm. u bañ ka jël ndax soxlawuñu si la jël ay waru gar mbeugël gi dañu kay aj juroom ñaari asaman fa la ka yalla la yobbu ndax si jamono yu ñu ngi teunk seytaane in teunk ga du def ben effort ba mu mën a duglu dug duglu dugg tey si tey si tey ji maanaam si jaami yàlla yi mm-hmm. yaa ngi dégg li la ab dangal dañu kaa interdit mm-hmm. woor ak ñàkk woor waaw waaw am na ka nekk fii josu josu jotaay bi moo gën a xees lañu wax mm-hmm. waaw ka wéet na xam sa boppa dégg naa li moo dagal koor ak koor ndax bari baka defé nyaman kabai, ñam man ka bayyi il na sol ndey ba tay baas marinière ndoket surtout na am ndoket baka defé aération bi na dugg la ci melni ay ngelawal yo mu meuna téré teel pour dem waaw ndax am na am na genre ne def man na yàq sa koor am déet voilà ba won tay ba wañ dugg sa wala aw yo, sa koor dara dal di dok. prière, Mais j'ai vu là. tu fais pas la prière. Hein? Tu as dit Allah, tu dois, Hein? Même vu, de manger du Je pas dit ça Attends là, pas des histoires, vu, aujourd'hui même. Elle a du Et tu dis. Lenn tu bëgg ma xelaat na ma ne din ma la jël teg la si ma wet ndax aw mépp aw rek a fi jox am noppa ba baax bi ñi si des ñëpp dañaa safetal ay wax yaa ngi dégg waaw kasi man waaw dinaa parti waaw léegi nag moom waa partir waa partir ak sa suppa kanja ak sa suppa kanja waaw li ma la kii nee na daal li ma leen mën a xamal ba mën leen kaa xamal hmm. moo la ne yéen ñi xamante ne ni yéen a bokk ay doon ay dëkkandoo yéen bokk ndey bokk bàyyi xam ne yéen la doxalante rax si doole yéen la jëflante la joxante waaw yéen daa gën joxe ñaan ñaan gi naw ma daf naw ma daf day ñii ñoo ñàkk ceegi waaw u dem taala ji bay wala u jënd ji mburu ah li ma leen li ma leen mën a xamal daal ba mën leen kaa xamal moo la ne ka topp si ma ginnaaw doo juum. te incha allahu rabi di ma la yóbbu ba sa yàlla. waaw sëriñ Sougou non ma sëriñ Sougou aw na école laa ñaan joxeel ñaan ñaan. ñaan yow moom yàlla dama ko mën parce que lii fa moom dégg naa ko. waaye ñi mu ñor nañ ko nangu ak ñaan bu tuut. leen ñaar ñi fi toog yàlla leen gudd fan. ñoom ñii dem ñoom ñii dem. yàlla nañu pakastal. yàlla ñu fexe nañu cotiser nu amul nag. ndax nu mat population. am de. ba boobaa. waaw. ba nu defee nu doole. waaw dañoo del day dem si Ansar Diop. waaw. Euh, dem si euh, Daouda Dieng. waaw. karena nag asan nudem si moom nu si moom day man des waaw ko nu si moom war a man des war amul nag de ba si ajaamaane ba xaw nu si moom ko moom jigéen de man góor jigéen ko ki di ngap non moom ke ke pompe la pompe la ko ka nga bare solo ah por na ma si wewu Eh, am na waaje ko doon labat waaye dama ñeeru ndax génn ko am yéen yàlla diggante ba tax ma yoon ne Eh, ko demal moom <laughs> la xam mooy ba ma ko wérdee eh. dina bàyyi ni mu nekk dama ko bëgg orienté ma ma ko orienté ba li eh. il pousse ko rek mu dem dama ko man xam nga man dama orienté ba maa dem yàlla na ma fekk ay rakkam wala ay magam uy man see jël waaw waaw ñoo la ko va ñoo la ko va ko va kay moom surtout nag surtout nag kii jëmoon nii kii ki ma doon déglu kii mu jojo kooku mën naa kaa jël ka ka takk

supermercato wala jalaaw muy supermarché boo xamante ni loo bëgg am na 95 de produits importés waaye tamit wuñu produits locaux yi 100 naturel baax neex te am place baax ci xale ak mag bépp xeetu fruit boo bëgg am na fa lépp lu yi soxla rek dem fa chocolat cookies crème glacée yaourt chips ak ay bonbons yu neex Les crèmes sucrées ak non sucrées wala en poudre diwlin épices vinaigre ak yeneen waaye nag yemuñu foofu am na cosmétique ci biir ay xeetu diw bopp yu baax pâte dentifrice brosse à dents eau de toilette déodorant parfum de chambre nga xeeñ neex sa kër ak sa auto xeeñ neex ay insecticide mouchoir couche pour seeni savon eau de javel linzette ak ay képp yu dëgër booy anniversaire wala nga mariage jàpp am na décoration yu yanj ay gâteau yu neex te am maanaam